ci gitu wolof dikkaat nañ ak yeen ci beneen bind bu bees bu jëm ci seen eh, bind yi nga xam ne bind anglais la leen koy leeral ci seen làkk wolof tey nag ñu ñëw indi lenn ci leeral mu jëm ci liñ tuddee simple past nga xam ne juróon nañ ko jàng waaye tey ñu indi ñetti jëf ñetti verbe yoo xam ni verbe yu di faral di conjuguer la ci di leen ber di leen jàllar wi ci di leen ber mu nekk yu ama am solo nga xam ne léeg-léeg dañuy dikk nekk ay auxiliaire maanaam auxiliaire nga xam ne dañuy gunge ab verbe léegi dañ leen a yi ngir ñoom dañoo am forme seen forme yu bopp niki lañ ko waxee woon liñ tuddee irregular verbs bu nekkee topp nga bind bi nga xam ne moo jëmoon ci simple past lii ak mottali lay doon ci bind boobee simple past niki lañ ko waxee woon am na verbe yoo xam ne ni koy conjuguer mooy dañ ci yokk id maanaam e ak d dangay yow mi déglu en français id nga ci yokk comme lu ci mel ne play nga ni played I played you played he played ok loolu mooy genn wàllu verbe bi am na yeneen verbe yoo xam ne duñ nangu duñ nangu règle boobu duñ nangu sart boobu ngir ñoom dañ leen tuddee irregular verbs irregular verbs yooyu nag verbe yi ngay waaj a gis ci lañ bokk lu mel ne to be to be ak to ak to do boo xoolee fii nii gis ni am nañ fi to bi moo nekk ni to have moo nekk ni to do moo nekk ni léegi subject yi moom moo nekk nii bu ko bu nekk rek dañ koy conjuguer leeral ko bu defé nak li les di wara mokal la ngir nga ragnal la ndax bu ci nek rek da am forum boppam nañ jël bu ñëk bi tu bi bo ne I was I was a student masala Mana man ab euh dongala won I was nekkona bu ko ak I am xam nga ci simple present. moy man man ab dongala waye nekkona ab donga wala ab dongala won I was nga wax you were you were okay he she it was we were you were they were kon gis nga fii nii dangay gis ni you ak we ak you ak they maanaam ñaari you yi ak we ak they bu ci nekk were lay doon waaye yi des yépp was lay doon loolu nag lu ama am solo la lu mat a ràññet la eh, rawatina nag ci njëlbeen nga mokkal ko mu sax nga xam ne danga mën a xamee bu nekkee ay ak chi ak yi ak it ñoom wóos la li des lépp nag wóor nga koy wax loolu mooy to be mooy firi nekk to have moom mooy ak amee ak moomeel nit nga ko xamee waxoon nañ I have you have he has she bu nekkee loolu mooy simple present waaye boo ko bëggee jàllar bi ci simple past looy wax had ok kon foofu du soppi ko had mooy ñëw fi yëpp boo bëggoon wax ne am naa ab oto wala nga ni loolu mooy simple présent mooy boo bëggoon amoon naa nga wax ne I had I had a car I had a car you had a car he had a car she had a car we had we had a car you had a car they had a car alright loolu mooy firi ak moomeel ñu ñëw ci bi ci des mooy def def dara to do to do to do nit ngeen ko xamee do day ñëw léegi-léegi nekk ab gungekat ngir tëgg li ñu tuddee ak dàq wala ngir laaj comme boo nee do you understand ok do you speak English xaw foofu do dafa ñëw rek ngir nga mën a poser question nga mën a laaj waaye duuti nit ci bopam mom dafa nek jëf jëf la ci bopam niki yeneen jëf yi kon momit form forme boppam moom it moo nekk nii mooy ci mbollem subject yi i did you did he did she did it did we did you did they did limi muy li rek moy def na bu mal bëggoon lañ la ndax def nga sa def nga sa eh, tagatu gi did you okay la lay did you did you do nga nga bëgg tontu ni ma yes ngeen ma yes I did it I did it def naa ko kon foofu dafay eh, bàyyi xel baax ne la did mooy bu nekkee simple présent la bu nekkoon simple simple passé la bu nekkoon simple présent do ak daas lay doon do ak daas kon lii moo nekkoon ñetti verbe yi nga xam ne yu ñu war a mokkal la waaye tamit yu ñu war a ràññal la eh, ñu jox la yenn rek ci ay niiral yoo xam ne da nga koy da koy maanaam wétalikoo ngir mën a xam dëgg-dëgg yi ni boo ko bëggee jëfandikoo ci lu teew ci lu ci lu passé loo xam ne da da ngay wala loo xam ne da ngay laaj comme lu ci mel ne nga ni ci wàllu tuub bi nga ni I was a student da nga saxal bu you were not a doctor you were not gis koy liir nag ngeen nga mën ko bàyyi xel You were not a doctor. Well, actually, was he your friend? Was he your friend? ndax sa xarit la woon ok you were not a doctor mooy nekkoo woon ab ab euh, bu ñëwee ci to have nga gis ni I had a car ok am naa amoon naa ab oto we did not have the keys amuñu woon yoruñu woon caabi yi fii ni gis kon boo nee we not fii li nga bëgg a mooy have moom nga bëgg a conjuguer kon foofu li ngay soxla rek mooy did not ngir nga mën a am négatif bi waaye have moom day ñëw daal di daal di sopp bokkut ak nag nga bëggoon wax ni I had nga xam ne foofu affirmative lay doon kon négatif bi kon have day ñëw noonu waaye did not rek foofu mooy li nga xam ne mooy marque bi nga xam ni mooy yor lay tudd li nga xam ni mooy euh, simple past ci foofu lay dugg ni ki noonu tamit booy laaj did ndax am nga maanaam dara ci dara ci jot waxtu alright est-ce que tu as tamit dañu ñëwaat ci euh, to do foofu kon mooy bu nekkee da ngay laaj to moom ni ki lañ ko waxee woon exemple bi ñu joxe mooy lu mel ne que did a good job. He did not do it. Did you do it? Okay. Il a fait un bon travail. He did a good job. Okay. Il a fait un bon travail. Did He did he did not do it. Manam am ben affaire bu ken def Ngani mom defu ko. He did not do it. Defu ko. Kung gis nga fi do mo ñëwaat waye fi li jitu mo négatif. Did you do it? Boobu da ngay laaj ndax ya ko def. Alright. Kon loolu mo nekkoon li aju ci ñetti verbe yooyu di sàkku ci yéen ngeen bindu ci seen chaîne YouTube bi di jàng anglais ci wolof di leen sant di leen gërëm di leen jox di daje ba beneen yoon thank you very much goodbye